waaw euh, c'est dans le cadre de la journée mondiale du théâtre euh, en prélude de la journée donc loolu moo tax tey ñu Blaise Senghor am xalaatu daal di def benn atelier boo xam ne échange lay nekk euh, daal di jël thème bu am solo nag mooy euh, des planches au séries télévisées un parcours atypique pour les pour les comédiens du Sénégal donc loolu. Euh, ci euh, journée mondiale du théâtre bi ci la tënku donc euh, ñu am xalaatu ne bu ñu ko defee ci journée bi dafa saturé ndax soraanoo am na Pikine ci man comédiens yi fa la ñuy añee si ngoon gi am na duuta Seck guddi gi dañuy dem Grand Théâtre ñu xam ne chargé na ñu tas ko donc moo tax tey ñoom ñu am xalaatu ne nañ ko def tey vendredi kàddu yaraax ñoom ñu defit lu mel ni dimanche prochain ci biir park Hann fa la kàddu yaraax di organiser donc euh, mu nekk tamit lu am solo ndax euh, baax na tamit ñun ñi yëngu ci secteur théâtre bi di amal daje yu mel nii di waxtaan ak xale yi soog a dugg ci théâtre ci ay thèmes yu am solo nag thèmes yoo xam ne daf leen di ñaaxaat thèmes yoo xam ne da leen di wanaat yoon bi thèmes yoo xam ne tey li ñuy def ci atelier de théâtre de formation mun nañ ko waxtaane fii euh, mu nekk euh, atelier boo xam ne verbal lay nekk donc dina yokk xale yi dina leen renforcer donc euh, ñu am ci contentement ak mbégte lool bokk ci ñi nga xam ne ñooy panélistes yi du sax dañuy ñëw toog wax suñu xam-xam bàyyi ko fi mais échange la ndax dañuy wax ñoom xale yi ñoom tamit ñu wax ñu échange ndax ñun lu ñu wax wax wax wala lu ñu mën wax wax wax wala lu ñu mën lu ñuy def tamit Euh, dañuy dañuy jël ci ñoom dañuy jël ci ñoom euh, donc nekk na tamit daja yoo xam ne wax dëgg yàlla war nañ ko baral bari di amal parce que xam nga état tey Euh, ñun suñu compétence même bu ñu bokkee ci association muy ARCO wala muy beneen association de théâtre suñu compétence tamit am na fu mu yem mais état tey moo am doole bii tamit mooy am doole dajale ñëpp moo am doole euh, accompagner moo am doole appuyer donc kon defe naa ne lu ñu lu ñu rafetlu la quoi wax dëgg yàlla te di sàkku nag ñu koy baril parce que tey bu centre culturel régional defee nii tey dakaar panel bu mel nii suba mu dem Pikine def ko fa ginnaaw suba mu dem Géejawaay ginaar suba mu dem Rufisque touché na defe naa la région de Dakar xam nga tey ku mel ni soppee ku mel ni Leyti Fall ñu leen di tudd mooy li may wax léegi mooy mm, euh, yox yoxi ci métier bi parce que dañoo ñun ñun jël théâtre def ko métier xam nga warul am blocage xale yi waruñu leen nax ku mel ni soppee am na chance dem école académique jàng théâtre génn ak diplôme donc euh, comédien professionnel la ku mel ni Leyti Fall amul chance dem école académique tey ñafe na ba nekk comédien professionnel samba wax na ko au début donc affaire yi amul amul secret dëgg la nag théâtre da nga koy jàng dañ lay former mais man tey aw ma woon dem chance école mais amoon naa dem chance ànd ak Samba Wan Samba Wan di comédien bu bu ñëpp xàmmee ci cinéma sénégalais joué na ci ay gelawaar donc nekk Sorano dama amoon chance di ànd ak moom di dem Sorano di dem di leen jege ji am chance di ñëw Blaise Senghor xam nga di di rencontrer gars yi ñoom Makodou Mbeng ainsi de suite donc am na loo xam ne du blocage ci ci comédien bi donc am na ñoo xam ne mun nañ la gëmloo théâtre da nga koy jàng tànk jàngoo ko mais c'est vrai daf koy jàng mais xale bi bu amul chance dem école bul ko ne da nga koy jàng noonu kon da nga koy découragé donc da nga ko war a wax kaay ñu wan la yoon bi amoo dem chance dem école mais demal jege diw mu jox la demal jege diw foo dégg formation demal foo dégg atelier demal donc loolu tamit dina renforcer xale yi parce que ñun tamit yox-yoxe wuñu ba ba ba am figure bi ñu bi ñu am nii tey yox ñu ci théâtre ba àgg fenn dañ ko gëm def ko métier gëm ne lii métier la war nañ ko fonk war nañ ko gëm war nañ ko def def loo xam ne tey ku ñu si gis dina xam ne kat ñun métier bii ñu nekk ñu ngi ciy ñafe donc euh, defe naa ne loolu tamit moo ñu yóbbu foofu te it euh, ñi ngi wan xale yi yoon ñi ngi wan xale yi yoon dinañ oser wax ko mooy man je dirige une association Arco de Pikine on est 600 presque membres 600 yuy daje chaque lundi Pikine suñu waajur yi euh, soo bëggee leneen ñoom métier la ñuy gis sama waajur génnewu ma ndax daf ma bañ mais dafa ma génne pour jàngal ma àdduna daf ma génne pour wan ma ne euh, parce que génne bi ma génne dafa defar lu baari ci man ndax benn bis dañu waxtaan mu ne ma gis nga su ma la bàyyi woon ci ni nga nekkee woon nga toog di gis sa papa di gis sa yaay di gis say mag di gis say rak xëj na jom bii nga am tey doo ko am xam nga kon moomu jàngalaat na la àdduna mu ne dama la bàyyi nga dem parce que yar nañ la ba nga màgg nga bëgg dara ñun gisuñu ko ndax nag dëgg-dëgg ci jamono yooyu ñuy bëgg tayaat di ci dugg suñ papa yi xamuñu loolu dañuy defee na sax boo nekkee artiste da fay jaaree yàqu parce que gisoon nañ bu njëkk deru artiste ni mu doon yàqu su duggee ci métier bi commencé di drogué wu commencé di di di def lu mu warul def donc tey ñoom dañ defoon ne foofu nga jëm mais bu fekkee xam nga li nga bëgg tamit génn seen kër taxul nga bon génn seen kër taxul ngay wër di jël yëfu jàmbur non gëm ne théâtre laa gëm bañ génn la ci da nga cee war a def jom ba bu dellu si waat leen rendre leen la mone